teewul nag ma njëkkee yu bare bari yoo xam ni day firndeel coono ñu ko doon teg mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax xam nga ne dinaa ci ñëw ci kanam loolu lépp bi nga xam ne dem na ba coono yi metti yonent bi da leen wax ne yéen jullit ñi léegi mën ngeen nëbb seen seenu ndëbb ak seeni jaamu yàlla nga xam ne buñ masaa di julli dañuy génn ba ci for for ya ci àll ba jullee fa waaye dëkk bi dawuñu ko jullee ci biir dëkk bi yonte bi nag moom dawut nëbb moom li mu daa def ci jaamu yàlla moom danaa ñëw ba ci penc mi ci ci kaaba gi mu mu fa daa jullee ki ko gënoon a sonal nag mooy ki ñuy wax abu lahab abu lahab ni ma ko waxee baayam la bu ndaw boo xam ni tey moom da ko jege ci bokk nekk baayam bu ndaw moo tax moo ko gënoon a sonal waxoon naa ci ginnaaw démb xëy na wala barki dem maanaam jotaay yi ñu wo- woote nam ko ca daa doy dale ak ni mu koy tontoo ba keroog ba mu taxawee ca safaa moom yónte bi di wax li ko yàlla yónni di wax waa dëkk bi xam nga abu lahab moo ko tont imaamu tirmidi sax àgg na ci net li wax ne yëmut ci wax jooju mu ko wax rek daa jëlu xeer sànni ko ko ne ko yow daal lii nga nu doyee maanaam buñ ko xamoon duñ fi ñëw abu lahab moom nag xam nga ne ñaari doom yu góor muy utba ak utayba ñoo yoroon ñaari doomi jigéen yi Seydina Muhammad mooy ku ñëw Ruqayya ak Ummu Kalsum waaye duñ déggee ne Seydina Muhammad day tàmbalee woote dina jeex rek ci la dal di wax ñaari doom yooyu ne ngeen fase ngeen fase doomi Seydina Muhammad loolu moo ci jiitu mooy ñu fase Ruqayya ak Ummu Kalsum ñu dellu seen i bàyyi yëmut ci loolu bi nga xamee ne Abdullahi mii doomi yonente bi alayhi salaam mu ndaw wax na yonente bi am na ñaari ñaari doom maanaam Abdullahi moomu yu góor ak ak ibrahim mi nga xam ne sayyidna soxna Xadija juru ko abdullah mii nga xam ne soxna Xadija ko jur ci ndawam la faatu day judd rek ci ndawam mu daal di faatu waaye bi mu faatoo abu lahab daa daal di dem ca pénc ma fekk fa waa dëkk bi yëpp mooy leen kaay leen wax na xibaar bu neex mooy muhammad doom ji góor ja faatu na mooy moom daal abtar la abtar mooy koo xam ne mënta am doom fi ne insha allah bu fi jógee léppam sax sax ndax du fi bàyyi kenn gis nga ci la saaru suuratul kawsar wàcc inna aataynaaka al kawsar fasalli li rabbika wanhar inna saaniaka huwa al abtar maanaam ki lay ñaawal nii ak di la naqaral ak di la wax ju ñaaw kooku mooy abtar mooy abu lahab moom la léppam di jeex bi ne abu lahab ay sëtam kenn xamul kenn xamu leen maanaam yonte bi nag ba léegi si bi seet nga gis koo xam ni ndamam lépp ak daraje yi addunaam yëpp mooy man sëtub yonte bi la ba léegi day am ba ilaa mi dindi am abu lahab ba tey daw dem ci loolu daa fekk bu yónente bi xam nga bi ko yàlla digal daa def waa màkk fu ndaje am dana dem ca ndaje ma sànni fa kàddu leneen moo mooy mooy sànni ci genn yàlla ci boobu moom a yónni nangam ak nangam na wax li ko yàlla yónni fu marché am it marché xam nga bu njëkk da ay marché bëriwutoon waaye marché yi dañ daa taxawal ay marché dañuy def marché samedi nii loolu lañ daa def xam na fu tawee fu ñu okaas suuqu okaas ak mijanna ak yeneen yu bare bare bari waaye marché yooyu it buñ ci masa am bu marché bu masa am dana fa dem bu demee wax ak ñoom ci yonente bi alayhi ci ci ci li ko yàlla yónni abu lahab nag da ko daa topp bu masaa dem ci ndar yooyu da koy topp su demee ba àgg su demee ba àgg moom yonente bi ba tàmbali wax ba àggal mu jël kàddu bi mu abu lahab ne naa kii de sama si ndooma lii mu wax nag bu leen ko dégg moom xel mi ci boobu moo neexut moo tax bu leen bu leen dégg li mu wax am wax nañu sax am na jam am na bis boo xam ni àgg na ci jël aw jël jël jël aw yat dóor ko fi seen kanam ndax yonte bi dawul fayu ngir wekk ko waaye nee na àgg na ci bis booba jël aw yat dóor ko ba ba der ci yonte bi génn dagg mu dagg ko ci kanam nit ñi ngir toroxal ko ak ak ay woyofal mbiram rek teewul itam soxna si Abu Lahab it moom it mooy jigéen bi gën a soxla yonte bi ci ci jamono daan ki ñuy wax arwa bintu xarb ibnu umay bin ibnu umaya ibnu nga xam ne moo doon mbokkum abu sufyan arwa moomu nag ummu jamil lañ ko daa wax bintu xarb ibnu umaya arwa moomu soxna si abu lahab mën nañ ne moo gënoon a sonal moom it yonte bi jigéen la joo xam ni lam yi ci moom moo ñaaw mu daa dëkk ci mu daa dëkk ci biir dëkk bi nag lu ñaaw lu ne mu wax ko ndax moom yonte bi ñoo dend kër di seet dana jéem a am loo xam ne dana dem ci dëkk bi siiwal ko ne yonent maanaam ci ci yàq dara yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko noonu daw dem ci loolu daa jël ay ay ay dëkk bay ba guddi mu ñëw lal ko ci buntu kër yonente bi bëgg bu génnee di ju dem ca kaaba gi ci fajar gi rek dégg yi da ciy sopp nekk noonu it daa def mbooleem li bon ci këram xeeti mbalit yeeg bu ñu rey gileem mbàq gileem yeeg butti yeeg yëpp mu ñëw sotti ko ko ci kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom dañuy wax ne yonente bi sax mu jël wut wut mbaar moo xam ne buy julli ci këram dañ dañ ngaa bàyyi ba muy taxaw di julli rek ñu ñëw jël butit yooyu noonu sotti ko ci kawam mu mujj nag wut am mbaar moo xam ne aw daj wax da ko def mbaar nga xam ne buñ sottee du agsi ci kanam loolu lañ ko daa def moom yonente bi moo tax soxna soosu alxuraan tudde ko xammaalatul xatab maanaam jigéen ji joo xam ne yanu lu bon rek daanaka mooy mooy mooy muy yitteem ak ak tuur ko ku baax muy kër yonente bi alayhi salaatu wa salaam rek bi saaru suratul masad muy muy tabbat yada abi lahabin wa tab saaru yi mu wàccee di xas abu lahab ak soxnaam sosu wax ni ñoom kenn du leen mën a tee dugg sa war a ëllëg keroog arwa mi nga xam ne mooy ummu jamil soxna si abu lahab dafa ñëw ci kër ci yonente bi dafa ñëw ci kaaba gi fekk yonente baa ngi ca kaaba ga ak sayyidna abu bakar bi mu ñëwee mu yor ponkalam doj bëggoon ko ko dóor fi ci digg nit ñi yàlla dogal bi ñëwee ba janloog Seydina Abubakar fekk maanaam gisul Seydina Muhammad ngi toog waaye gisu ko yàlla yóbbu maanaam gis ba nga xam ne gisu ko mi ngi gis Abubakar waaye gisul Seydina Muhammad mu naan Abubakar sa waa ji de bu ma ko fekkoon fii tey dinaa ko dóor sama sama sama sama sama sama daj yi moom wayam yi muy def xaw ma way lu mu doon mi ngi ma ci xas na xam maa daf ko xatal daan ne ko xanaa man xamul ne damay wax ay way tàmm nag naa ne mu damma man asayna wa amrahu abayna wa diinahu xalayna maanaam lii nuy way li mu wax ni du du kenn xam bëgg doo ko bëggoon ne ko man damay way ni moom waaw maanaam li may way li ma wax mooy mu damma man asay asayna maanaam nit ku ñëpp ŋàññi ku ñëpp xas ku ñëpp soxlawut nun moom lañ mooy wa amrahu abayna maanaam mbiram it lépp bañ nañ ko duñ duñ ci def dara duñ ko topp wa diinahu xalayna diineem jiit bañ nañ ko te yàlla tax loolu la wax noonu daa di daa di daa di daa di daa di dëpp wax na ne Abubakar da ko wax ne ko yow kat sama waa ji man du waykat moom da ngaa dégg li nga dégg moo wérul rek mu ne ko kon baax na daa di dëpp Seydina Abubakar laaj Seydina Muhammad ne ko am xanaa da laa gisul mu ne ko yàlla ci moom moo moo moo jël ak gisal gis ma Abu Lahab xam nga kon mooy ki gën a sonal yonte bi alayhi salaatu wa salaam ndax benn këram dafa taqoo woon ak kër yonte bi di sësoo ay kër ibnu ishaq wax na ne ñi dëndoo ñi dendoon ak yonente bi ay kër ñëpp dañ koo sonaloon abu lahab moom moo ci jiitu ak alxakam ibnu abil aas ak oqba ibnu abi miayat ak uday ibnu xamra al taqafi ak ibnu al asda al hudali ñooñu ñooñu ñi sosoon ak moom ci ay kër waaye ñooñu ñëpp dañoo maase woon di ko lor ak di ko sonal ak di sonal ak njabootam mas naa génn ca ca ci ci ci ci loolu sax dinaa ci ñëw ca ginnaaw bu seyd bu abu talib nelawee la waaye ibnu ishaq nee na ñii denoon ak yonte bi te daa ko lor ñëpp kenn ku ci ne kenn ku ci ne sag mujj mujj gu bon la ki ñoo xakam ibnu abil xaas rek moo ci mucc lu ne daanañ ko ko def ci lu ñaaw buñ ko masaa jël yu taq yooyu ak yu bon yooyu ñëw sotti ko këram yonte bi mbaq yooyu buñ ko masaa sotti ci këram day ñëw génne ko ba ci bunt bi mu ne leen yaa bani abdi manaaf ayu jiwaarin haada man ndax lii mooy ak dëkkaale yaa yéen samay maana yëpp banu abdi manaaf nga xam ne yéen ñëpp ñoo bokk ba ñoo bokk maam daal di koy sànni ci mbedd bi moom yonte bi loola la def daw ci weesu loolu ki nga Uqbat ibnu abi Mihyat nga xam ne kenn ci ñi dëkkoon ak moom la kooku it ci ñi ko gën a sonal la bokk ndax moom dafa ñàkk kers lu kenn mës ta ñime def yonente bi moom moo ko daal di wax ne ñime naa ko dinaa ko def bokk na ci li imaamul Buxaari nett li ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa mas di julli ci kaaba gi xam nga kaaba gi fi fi jàkkaarloo kaaba gi booba waa Makka ay mbaar la ci defoon daa fa toog am bërëb yoo xam ne bu ñu masaa am leen yitteel fa la ñuy daje ba daaru natt lañ ko tudde woon xeetu par parlement la nga xam ne fa la ñuy daje di diisoo ak di waxtaan ngir sottal mbir yi foofu nag bañ fa toogee nag yàlla dogal ñu seen Seydina Muhammad di julli Abu Jahlin daa di wax ne waaw diw sàngam de démb rey nañ ak gileem mbaq ya nag ak butit ya ak yabon ca gilem la mi ngi ci bërëb sàngam waa kan moo ñimee fekk fii Muhammad nekk nga ñëw fëpp ko ci kawam Uqba ibnu Abi Mu'ayt mi ne loolu man ñime naa ko ñu ne ko ah mu ne la xaar de ma ñëw daa dem jëli mbax ga dajale ko butit ya nga xam ne xasawaay bag lépp mu ñëw fekk fi yonente bi ne mu fa mu jullee ba sëgg ni rek mu xëpp ko ko ci kawam maanaam ak ak ak ak salte yaag yee ci ne yépp booba Abdullah ibn Mas'ud moo nettali nettali bi nee na man maa ngi toog waaye mënuma ci dara Abdullah ibn Mas'ud xam nga yàlla dogal da doon maanaam mag loolu waaye daa daa tuuti woon xeet na maa jég li ñuy wax sungu li loolu la xawoon na dafa tuuti woon lool ab din waaye ku bëggoon yonte bi Abdullah ibn Mas'ud ndax moom daa def fu yonte bi masa jëm day topp ci ginnaawam rek su demee ba simmi ba simmi ay dàllam mu jël ko dugal ko ci ay loxoom nii yor ko loolu la doon liggéey loolu nag da koo neexoon mooy liggéey métier mi ko gën a neex li Cheikh Yusufu Nabahani wax ne said ibnu masudin bi xidmatin alayhi wa ana saidu bi xidmati li misaalihi dafa ne ibnu masud moom ginnaaw la ko gënoon a neex mooy yor dàll yonte bi dugal ko ci loxo maanaam maanaam di ko liggéey la loolu nee na man ginnaaw gisuma dàll yonte bi ma jël maanaam ma di ko dessiné meloo dàll bi ma di ko dessiné di ko liggéeyal loolu loolu nee na moom lay lay lay liggéey Yusuf ibnu Ismaïl Nabahani loolu ngay xamee nag njëriñu liggéeyal yonent maanaam doole liggéeyal yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xam ne moom la sëñ bi doon def ndax ne kenn fekk ko ci loolu mu wax ne faraxtuhu bi xidamin laa saaniya waaw maanaam bégal naa ko ci ay xeeti liggéey yoo xam ni kenn amul amul ñaareel amul ñaareel laha min xidamin laysat saaniya Ibnu Mas'ud nag nee na maa ngi toog di seen Uqbat ibn Abi Mu'ayt noonu mu def jël yu bon yooyu ñu sotti ko yonent bi alayhi salaatu salaam nee na waa waa pénc ma nag yéefar yu mag yooyu nee na daal di tàmbali xàqtaay ñoom ñëpp tàmbali xàqtaay kenn ku ne xàqtaay dóor sa morom ñoo daal sa waay nekk ki ñime ñime na ko nekk yonent bi daal di àggale ak julle moom ba mu jullee ba àggal fekk bi mu daata àggal sax soxna Fatima doom da ko yëg ak coow li mu daal di bàyyi woo bàyyi ko ca këram ñëw bi muy julli mu di ko faxasal faxas ko faxas ko ba mu set yonent bi nag ba mu sëlmalee dèjà dafa wax ne dafa yëkkate boppam ak ay loxoom ne allahuma alayka bi quraish quraish yàlla bàyyi naa la waa waa quraish maanaam alayka bi quraish ma bàyyi naa la ñoom maanaam bàyyi bàyyi naa la yàlla li wala wax bàyyi naa la yàlla mais alayka bi bi quraish maanaam yow daal yaay kii yaay kii nga xam ne daal yow la yaa yaa ci yow la wéeru daal te gis nga liñ ma def limu ci loolu da caa teg di leen lim ñoom gaa yi fa toogoon allahuma alayka bi abi jahlin wa alayka bi utbati bni rabia wa saybati bni rabia wal walidi bni utba wa umayati bni xalaf wa uqbati bni abi muayat noonu la ko limee tàll ay loxo xam toog wa waa penc ma nag bañ déggee loolu dañoo tiit ndax ñoom xam nañ yonte bi yonte bi comme ci ma sa ñaana rek fa saabe c'est c'est naa ci ñëw léegi fa saabe fi mu ne dañuy daal di gis lam la ñaanaloon mais ñu tàmbali nag kenn ci magi penc bi kenn ku ne ñëw fekk yonte bi fi mu toog ñu tàmbali nag kenn ku ne masla ne ko daal yow suñu mbokk nga xam nga te te xam nga nit day juum waaw te yow lu baax rek nga daa def bul ci bul bul kii waaye Abdullah ibn Mas'ud nee na ñoom ñi yonente bi limoon ñëpp bisu bisu Badar gis naa leen maanaam xam nga Badar ba ñëpp faatoo ña faatoo woon dañ leen dajale ci genn bënn mooy men men benn teen bu yàq bu fa nekkoon dañ leen dajale ñoom ñoom yéefare nee na ñoom ñëpp keroog seen naa leen ñi yonente bi limoon ñoom ñëpp nee na keroog gis naa leen ci bënn googee ñu ñu faatu ñoom ñëpp Umayya ibnu Xalaf waxoon naa léegi mel na ne daa mel li ma naa ko ci ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi dendoon yonente bi kër waaw bokk ci Umay Umayya ibnu Xalaf bokk ci waaye Umayya Umayya ibnu Xalaf mooy ki moomoon Bilal moom it ku saay-saay la woon Bilal bu masaa gis yonente bi fu mu ko gis rek da koy regaju ak di ko nelaju boole koog wax ju ñaaw ak ay wax yoo xam ne kenn mënu ko nettali ci ñoom ci moom la yàlla wàcce waylun li kulli humazatin lumaza man rek a ju jëfi bët la joo xam ne ci bët lañ ko defee xeetu kettantu la goo xam ne fu mu gisee daal dana ko dana ko ñaawal dëw ko ci ay bëtam aywa fu mu gisee nee na fu mu ko gisee dana ko kii ci ci aw làmmiñam wax la kii ba tey ubay ibnu xalaf mbokkum umay ibnu xalaf moom moom it doon xaritu ki ñuy wax Uqba ibnu Abi Mi'yat dañoo xaritu dañoo xaritu benn bakkanam benn bis nag Uqba dafa dem doon diglu yonente bi la mu doon wax maanaam fi yonente bi nekk saxaaba yi di waxtaan ak ñoom mu dem toog fa di ko diglu ba yonente bi àggal ba mu fa jógee Ubay mii ma waxoon di mbokkum Umayya daal di ko ci yedd ne ko lii nga def daal xam nga ne waroo ko def toog nga fa toog rek loolu day mel ne da nga koy da nga ànd ak moom wala da nga koy dara jàll ne ko nag seetal noo yàq jëf jooju ba nga xam ne maanaam yëpp dañu xam ne jubluwoo ko woon a diglu diglu diglu maanaam teral ko aywa Uqba daal ne kon insha allah dinaa ko tifli ci kanam dinaa dem ba ba jàkkaarloo ma tifli ko waaw boo ko dee di nga xam ne man gëmm ko mu ne ko waaw mu daal dem ba fekk yonte bi fa mu toog mu tifli ko ci kanam moom moom Uqba Ubay ibnu Xalaf it moom bokk na ca lam def mooy dafa jël ay ay ay ay maanaam yax yu fonox def ko maanaam moqar ñi ko ba mu nekk pënd mu ñëw ëpp ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci itam ki ñu Axnas ibnu Shariq as-Saqafi moom it ku daa sonal yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba alxuraan wàcc ci moom di ko di wax jikkoom yu ñaaw nekkoon Abu Jahl nit bokkoon na ci ñi gën a ci gën a sonal yonente bi moom ci kaw suuf mooy Abu Jahl moom yonente bi ci moom moo ko tuddee Abu Jahl Amr ibn Hisam la Hisam la tudd yonente bi moo ko tuddee Abu Jahlin ngir ak moram akuk réeram ak doy waar gu mu doy waar loolu la Sëñ Tuubaa wax ne maanaam moom jarrahu nisfu ismihi li radan maanaam xaaju tudd Jahlin jooju moo ko moo ko yóbbee li ko dal lépp moom Abu Jahlin Abu Abu Jahlin nag moom bokk na ci li mu daa def yonente bi mooy mooy moom danaa ñëw def loo xam ni aw ñaawteef ci kanam yéen ba pare di ko puukare woo loolu mooy li moo taxoon mu gënoon a doy waar moom danaa ñëw fi yonte bi waxtaane ak saxaaba yi mu diglu ko di yàq jataay bi ak di ko cekkantu ak di wax ak xàddame ko ba bëgg a li ñu wax nit ñi duñ ko dégg da ko daa def loolu di ko ndamoo boole ci ba mu ko njëkkee gis mu julli ci xaramu kaaba gi dafa ñëw ba agsi fi moom ne ko lu mujj tey bul fi julleeti maanaam ba mu yóbbu jëriñ ba mu njëkkee gis yonte bi julli fa daa ñëw ne ko bul fi julleeti wax ak moom wax ji ñagas yonte bi gëdd ko ne ko toppal fe mu ne ma fee tey julli wéy di julli ba mu sëlmalee mu ne ko xanaa yow xamoo ne man lii nga may gëdd yow Muhammad xanaa xamoo ne man penc mi yëpp mën nañu déglu maanaam boo boo yëkkatoon sama loxo rek ñu faagagal la yëpp yow léegi loolu ci laa moom laa ko xam ne ci ne ko fal yadu naadiyahu sa nadu zabaniya parce que na woo penc bi bu ko neex bu ko bés bu woon penc mi rek ci lay ci lay ci lay gis lu mës ko gis te loolu am na ci yeneen nett yu bari bari mooy benn bis li imaamu muslim nett li ne abu hurayra moo ko nett li mooy benn bis abu jahlin dafa wax ne kat Muhammad bàyyi gi ngeen koy bàyyi mu fi julli moom loolu man duma ko seetal su leen neexee nag li may waaj a def bu ma ko defee ba noppi ngeen jébbal ma banu banu Hashim ñu faat ma wala ngeen def lu leen neex ndax boobu xam nga xam nga bul fàtte ne arab yi maanaam dañoo am nu mu bindee woon kenn ku ne sag giir fi ne giir gi nga bokk buñ la laalee laal nañ giir gépp fi mu ne borom giir gi itam ki ko jiite itam lu mu wax rek maanaam ci la ñëpp di ànd fi ne am na ñoo xam ne bañ bañ tuubee ci la ñañ bokkaloon giir ñëpp tuub masalan boo demee Makka danaa ci agsi léegi Saad ibn Muaz masalan ba mu tuubee bokk ci xas rek giir ga yëpp ci la ñoom dañoo daal daal tuub tuub noonu la noonu noonu lañ dañ daa parparloo ci wàllu ci wàllu askan ak ak famille bi nga bokk am na ko xam ne day wax ne fa ma ana illa min ghuzayata in ghawat ghawaytu wa in tarsud ghuzayatu arsudi masalan man ci giir gi laa bokk rek suñ dawee ma bew suñ jubee ma jub luñ def ma rek noonu lañ daa doxe moo tax Abu Jahl ne leen man li may waaj a def xam naa ne bu ma ko defee Banu Haasim danañ mer jéem a fayoon tey yéen bu leen neexee nag ngeen jox ma leen bu leen neexee ngeen def du ma def waaye li faaw ma def ko mooy bis bu ma ko gisee tey mu julli fii danaa jël ponkalam doj ñëw dóor ko ko bu ca faatoo baax na bu ca faatoo it moo xam yàlla dogal waa dëkk bépp di xaar maanaam waxtu ba jot yonte bi ñëw ba agsi ci kaaba gi tàmbali di di di di julli Abu Jahl def na mu waxoon daal dem jël ponkalam doj ñëw di dox ba wut si yonte bi ñu njëkkee ko suñ ko mu sànni doj bi samp xelu daw gaa yëpp ne ko waaw yow Abu Amru ibn Hisham waaw li nga def nag moom moom moom moom yë- yëfi lu mu doon mu ne man daal bi ma ko jubee damaa jekk gis suuf si xar ci boobu suuf si moom moo xar ma gis maanaam sawara woo xam ne maanaam bu ma sëq woon tànk rek dama ci damay tàbb ci faxu ndee moo tax ma ma daw yéen tamit nag ba mu noppee la ne moom bu bu bu jéggaatoon benn jéego rek malayka dañ koy këf loolu xam nga fi ne boo gisee yeneen ñi ma ñu kon wax lu ne def nañ ko yéen tamit te li fépp leen moom la mu doon damu ci wax ne waa penc meeg nangam nangam te alxuraan wax ne fal yad'u naadiyahu sa nad'u zabaniya maanaam bu woowee penc mi dañu woo ñu wax azabaniya ay xeeti malayka yoo xam ne man maanaam kenn jëm rek mën naa faagagal adduna sépp gis nga maanaam yonte bi danaa ci ñëw ci kanam bi mu demee Taïf ba dëpp malakul malakul jibaal nga xam ne keroog la da njëkk wàcc ci kaw suuf wax ak mbindeef yàlla da ko yebal mu ànd ak jibril ñëw wax yonente bi ne ko mën na yàlla dénk mbiri montagne yi waa Makka nag ci xut lañ ne te ñaari montagne leen ñoo leen wër su la neexee moo dajale ñaari montagne rek ñu suul ñu faatu yonente bi ne ko déedéet ndax xëy na yàlla mën naa dogal ñu ñu ñuy jur wala ñuy génn ci seen ci seen ci seen maanaam maanaam ay nit juddoo ci ñoom ñoo xam ne ay judd dañuy doon yu yoo xam ne dañuy kennal yàlla di ko jaamu kon lii ci gàttal rek mooy liñ daa def yonente bi ci gàttal